cent millions d'euros kon su ko waa mën Manchester United bëggee li leen war moo di génne cent millions d'euros jox ko waa Benfica xaatimal ko contrat mu dem ca Premier League ba doxal xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle. ñu jugee ci João Neves ak waa mën sa Manchester United ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Angleterre bi tudd Greenwood bu ñu sukkandikoo ci AS yéenekaay club yu bëri nekk ca Premier League ba ñoo ngi bàyyi xel doomu Angleterre bi li ko waral moo di mi ngi doxal jamono ji te Liga e sport ba ak waa Xetafe jamono ji nag aas yéenekaay nee na club yu bëri nekk ca Premier League ba ñoo ngi koy bàyyi xel muy Greenwood ñu jugee ci Greenwood ak club yooye di ko bàyyi xel jël doomu Allemagne bi tudd Malick ceew di football ca AC Milan clubam dañ doon jàkkaarloo démb ak Borussia Dortmund waaye moom daf ca jëlee ab blessure blessure boobee nag xibaar ya ca njëkk a génn moo di taxu kaa simple lool maanaam dafa xaw a dina noppalu lu mu gàtt-gàtt une semaine maanaam juróom-ñaari fan jàpp fukki fan door a mën a dugg ci terrain football waaye li ñu jàpp moo di su noppaloo semaine dina mën a dugg ci terrain yu doxal su loolee amul nag dina wéyal faju mi muy Malick caw xibaar boobu TV Dello Sport moo ko xam xamle ñu jugee ci Malick Thiaw ak waa AC Milan wax seenu xibaar bu naqari dem ci match bi doon dox démb ci diggante Paris ak Newcastle xam ngeen ne Newcastle moo mëne woon waaye ca cëppaandaw ga nag Paris dafa égaliser ci penalty bu taq suuf lool penalty boobee sax waa UEFA wax nañu ca ndax def nañu ca ab communiqué nee nañu penalty bi taq na suuf lool te arbitre bi nga xam ne moo nekkoon ca VAR ba teg nañu ko ay daan moom doomu Pologne la mi njiitu du ngi tudd Kwiatkowski moom li tax ñu teg ko ay daan moo di règlement yi FIFA génne moo di bal bi su fekkee dal na ci sa yaram fenn dal ci sab loxo loolee faute amul ci noonee nag tiré penalti boobee moo tax arbitre ba nekkoon ca vaar ba nekk doomu Pologne teg nañu ko ay daan tey jii sax dafa waroon bokk ci match bi war a dox ci diggante Real Sociedad ak Salzburg waaye beneen doomu Allemagne la ñu jël mu wuutu ko foofee ndax démb kat dafa amal ay njuumte bokk na ci tamit li mu yokk ci temps bi dafa bari lool ndax huit minutes la ci yokk te match boobee nag. taxawut lu bëri ba ñu mën caa yokk huit minutes loolee bokk na ci li tax waa UEFA teg ko daan moom doomu Pologne bi tey jii sax waroon na bokk ci ñi war a arbitré match bi war a dox ci diggante Sociedad ak Salzburg waaye match boobee nag du ca bokk communiqué UEFA boobee nag ñoo ngi ko jëlee ci waa Mundo Deportivo ñu jugee ci waa UEFA ak seenu communiqué dem ca waa Real de Madrid ñoom nag dugg nañu ci xeex bi ngir jënd doomu Allemagne bi tudd Florian Wirtz gone gi nag attaquant bu footballu Allemagne am ci moom yaakaar la club yi ko bëgg nag bari nañu lool Real de Madrid dugg na ci bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport waaye waa Bayer Leverkusen mi moom gone gi jamono ji seen xel dal na nañu ne gone gi balaa jugee ci club boobee saison bi ñu nekk dina jeex tàkk waaye waa Bayern de Munich nag ñoo gën a jekku ngir xaatimal ko contrat ndax gone gi bëgg-bëggam moo di des ca Allemagne di réewam am fa club bu mag doxal naam de Madrid dugg na ci xeex bi waaye Bayern de Munich nag moo gën a jekku ngir xaatimal ko contrat xibaar boobu Sky Sport moo ko le ñu jugee ci waa Real de Madrid ak seeni bëgg-bëgg jël ancien sóoru Real de Madrid bii di Isco moom nag jamono ji ma nga ca Betis Séville di fa doxal loolu sax li koy firndeel moo di club boobee li ñu bëgg moo di waxtaan ak moom mu yokk contrat balaa yàgg toog foofe jàppale leen naam nekkatul xale waaye jamono ji nag mi ngi doxal ak waa Betis Betis nag li ñu bëgg moo di yokk contrat moom isko xibaar boobu ESPN moo ko xam xamle. ñu jugee ci isko ak waa Betis CFC seeni bëgg-bëgg dem ca waa Barcelone ñoom nag am nañu lu toll ci douze millions d'euros démb li ko waral moo di kat qualification bi nga xam ne. am nañu ko dem ci huitième de finale ya ak ndam li nga xam ne am nañu ko ci kaw Porto ndam loole la ñu ca jëlee cib xaalis mi ngi toll ci deux virgule huit millions d'euros qualification bi ngir dem ca huitième de finale ya nag la ñu ca jëlee cib xaalis mi ngi tollu ci neuf virgule six millions d'euros soo ko boolee nag dina nekk douze millions yu toftal loolee la Barcelone am cib xaalis jamono ji waaye Ligue des champions bi nag laata muy jeex waa Barcelone jàpp nañu ne dinañu ca am xaalis bu toll ci soixante dix millions d'euros loolee la Mundo xam xamle Barcelone googee sax du duñu ko bàyyeegum ndax bis ni tey lañu am cent vingt quatre maanaam téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent Barcelone am na ko ndax mille huit cent quatre vingt dix neuf lañu fondé woon club boobee maanaam ci la Barcelone juddu woon kon nag na ñépp xam ne Barcelone am na téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent tey jii loole nag mbégte la ndax Barcelone yàgg naa bégal askan wi yàgg naa bégal tamit ay supporteram na